ni ko ñi fi jàll waxee rek ci sunu tur ak turu mbooloo mi nu àndal yëpp mbooloo mi nag euh, dama koy sof ci ñi jot a wax rek bu ñu tuddee sëriñ Cheikh Abdou Mbacke Gaynde Fatma tudd soxna maam xarim yi di sunu bàjjan ak Cheikh Abdoulaye Diakhaté Serigne Aboog Serigne Issa yóbbaale képp kuy mbokk ku nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci dëkk bi tey jàppale Macky Sall bu ñu ci tuddee l'honorable Makhtar Diop Abdoulaye Seck Sadaga Mohamed Cissé soxna Roqoy Diouf ak Nogoy Diouf madame le maire ak madame njaay Jomboxo soxna Ayda Gaye mel na ni tudd nañ ñëpp comme ni ko Mor waxee Isma Dioum Omar Sarr dëkk bi dañ ko def fukki pàcc ak benn te tey muy taxaw ci fukki pàcc ak ñaar muy ay zone zone bu ne Kafene la ko fa bàyyi mooy xam bëgg-bëggu Macky Sall nga taxaw ci. sëriñ bi bu ñu teewee fii ñëw ci sa kanam bokk ci sa njaboot muy man sama bopp ak sëriñ Cheikh Abdou ak ñëpp nag rek laa wax. li tax du ma dugg ci li bi damay bañ ku ma fàtte rek nga mere ma te ñëpp du ma ne xam naa ñëpp waaye ëpp xam naa leen kon ku ci nekk jàppale sama kàddu gi mooy sa kàddu la ma leen waxoon démb ak bërki démb kenn ku ci nekk jàppal na yow yaay tëdd liste bi ndax tëdd liste bi benn yitte la am mooy liste bi jàll Macky Sall am ndam militant bu góor ak bu jigéen benn yitte la am mooy liste bi jàll Macky Sall am ndam kon nekk jàppal na yow yaay tëdd listu départementalu Mbacké te loolu laa gëm te loolu lañuy ñuy dund sëriñ bi ñuy seere ay cant ak i ngërëm bala ñuy dalal sunu gan ne bi liggéey bi tàmbalee ak léegi képp ku dëkke dëkk bi te bokk ci sa njaboot sa njaboot mooy ñi dëkke dëkk bi te war a futteeku ànd jàppale Macky Sall góor ak jigéen ma ak ndaw kenn desul ci dara loo xamante ni dana tax li ñu bëgg mu tegu ci yoon jeunes yaa ngi nii yu góor yi ak yu jigéen yi kon ñu ngi lay seereel sunu cant nun ci mbooloo mii nga xam ne ñoo laxasaayu ci biir dëkk bi ñuy ànd ak ñoom di jàppale président Macky Sall ci liggéey bu rafet ci ab yar ak i teggin ak joxante cër ñuy takkul mbooloo moom Mbàkke ñaan sunu borom boole ñu sàmm boole ñu yiir ba lii ñu tàmbali woon ay fan yu jiitu tey sunu borom may ñu ñu mottali ko ci ni mu gën a rafete tey nag ñu ñëw fi ànd ak sunu tëdd liste national kan la soxna Aminata Touré soxna su baax di nit koo xam ne képp kuy engagé di ànd ak Macky sàll président Macky Sall dafay mel ne moom ngay jàppale ndax engagement du tey démb la te engagement bu am solo la def ci wetam mooy nekk ci lépp loo xam ne day tax yitte yi président mag Sall di am ba mën a jëme réew mi kanam mu nekk ci guddi ak bëccëg suba ak ngoon. loolu firnde ji rek mooy lii ñu ko def tey def ko tête de national ñu indi ko fi ànd ak moom mu jaar fi mu jot jaar ziare ji sa maam ju baax ji Cheikhul Khadim ziare ji sa mag ji sa xarit bi. sëriñ Muntaxa jaar ci sëriñ aboo ziyaare ji ko sàkku ñaan mais jaale ko sëriñ Xalil moom sëriñ Falilu sëriñ bi ñuy sàkku moom mii yan bii ñu ko yenn nga ñaanal ko ak mbooloo mi muy àndal ak ñu ko ciy jàppale faaw ñu tudd ci monsieur le ministre Samba Sy ndax lu jiitu élection yi di ñëw dëkk bu ci nekk yéen tànnoon nañ ay nit président yebal ci département bu ne ay nit ngir mu waxtaan ak nit ñi fa ne di ko jàppale ci nu ñu mën a nosoo ci genn buum monsieur le ñu ngi lay sant ci tànk yi nga doon dox démb ak bërki démb ak mbooleem kàngam yi ma àndaloon di ko dox di seereel sëriñ bi sa taxawaay ci ñun ñu doon ànd ak yow te di la déglu ci sa ay orientation ci sa yar ci say teggin mais ci sa xam liggéey liggéey te jàpp naa ne tooy loolu wane na ni résultat bi mi ngi tegu ci yoon ndax tey dëkk bépp ñoo mobilisé wu ànd nekk def wenn say ngir teetu soxna Aminata Touré monsieur le ministre El Hadj mi ngi ni toog ak ñi soxna yi mu àndal yëpp soxna Khadija sama jigéen mi ngi ni toog Abou Abel Thiam sëriñ Aliou ja di nitu diine borom mbëllëxee waaye di nit ku engage ci luy développer Sénégal rawatina ci wàllu mbay am fu ci féete président ci taxawaay bu rafet kon sëriñ bi kii nu fi àndal ñoo ngi koy dalalaat ci sa kër gii. di ko dalaat ci sunu kër gi bëgg nga ñaanalal nu ko Mbàkke sunu borom mottalil ko ay yéeneem ci yan bii ñu ko yan ba mu mën a def liggéey bi defin wu rafet mais am ci ndam def ci ndam ànd ak koo xam ne nag boppam jëmmam ak room lépp da ko jox Cheikhul Khadim muy monsieur le ministre la booba ba tey amul semaine bu muy toog te du woote di xam fu ñu toll ak di joxe xelam ak xalaatam ci luy doxal liggéey bi ndax nee na xëy na milité biir Touba waaye jàpp na ne fi la ndax li Touba doon ci moom. kon sëriñ bi euh, ñoo ngi sàkku ñaan ci mbooloo mi ñu àndal nekk ci dëkk bi ci li ñu siq ak ñoom te lépp di lu rafet ak lu baax ak tegu ci ak taalibe ndax xam nañ ne liggéey ci dëkk bii rawatina ci wàllu politique bu ci ab yar àndul du sotti bu ci ak yëg bokkul la dox du mottali kon nag sëriñ bi ñoo ngi sàkkuwaat nga ñaanalal nu mbooloo mi nosu giinu sunu borom defal te ñi fi ñëw gisal ko seen bopp ndax gankat des na ko teer lu ne ba mu des gis xam te ñoom ñoo waxal seen bopp ne li ñu fi gis dal na seen xel kon nag Mbàkke ñi ngi lay ñaan nga ñaanal ñu ñoom li dal seen xel ñu fekk ko fi bu ñu demee nañ ko fi bàyyi bu ñuy wuti ndamit ànde ko noonu ba sunu borom defal ñu ko di feddali nag man ci sa kanam Mbàkke ak ci kanamu mbooloo mii ci kanamu soxna Aminata Touré suma engagement ak sama jàpp ak sama taxawaay ci wetu président de la République Macky Sall ci lépp loo xam ne lu koy may ndam la incha allah ak waa département bi maa ngi tàllalaat ñëpp loxo góor ak jigéen mag ak ndaw ci fii ñu toll ak bu yeggee fa ñu jëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci kanamu sëriñ bi tey sàkkuwaat ñaan sunu borom dolli ñëpp taw féex defal leen sutura Mbàkke ba lii ñu nekk sunu borom mottali ko te ñu jëlee ci ndam lu yaatu lépp di njariñal dëkk bi mais lépp di njariñal Sénégal mais lépp di succès ak yokkuteg président Macky Sall sunu borom def sutura ak tawféex ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ Galas wax nga lépp sax waaye bu nu noowee ba fii kër euh, sëñ Bachirou dina nu yëkkati kàddu euh, nuyu ko ziyaare ko. Eh, ñaan yàlla ay la gudd fan bu ànd ak wér ndax sëñ bi nag dinaan daan ne ñuy waxtaan ci mbiru senegal ma naw xalaatam lool ndax dañuy waxtaane lu bare bare bare ci développement ci xëyu ndaw ñeeg lu bari daal kon sëñ bi tey bu ñu ñëwee fii ubbee fi campagne bi eh, ziyaare ca jumaa ja Xaadimal Moustapha a ah, jaar ziyaare xalif général jaar it jaale sëñ abo dañuy ñëw fii it ziyaare la bu baax a baax jotali la it ziyaaru président de la république mi nga xam ne yéen a ngi jox ko toujours ndax lépp lu jëm ci wàllu dëkk wi yaanaa sëñ bi moom la la bataleen mu ngi lay nuyu ah, maa ngi jottali ziyaaru responsable yi ma àndal yëpp sëñ doo wax na dëgg ndax eh, li nu def tey eh, xaw na ci suñu biir mooy booloo ñëpp maase ànd topp ci suñuy ginnaaw candidat kooku seeni ñaan eh, ñoo antu kon nga may ma it sëñ bi ma wax ak tuuti mbokk yi fii ndax bu nu fi jógee rek danoo bëgg a tegu ci yoonu Linguère ndax waa Linguère ak waa Ranérou ñuy xaar ko defee lii nga xam ne gis nañu ko fi te sëñ Galas biral ko muy li tubaab yu tuddee unité ñun ñëpp ñu ànd xam ne la wuti dama am solo ci réew mi mooy jox majorité président assemblée nationale. loolu nag sëñ bi ñu bëgg ci sa ñaan bu baax a baax a baax ndax président li mu tàmbalee liggéey fii ci Touba fas na yéene na ko yekkali te wax naa ko sëñ bi jële ko ci président. la mu ñu wax mooy lu ngeen di defit na ngeen ca jiital yiw na ngeen ca jiital kàddu yu rafet na ngeen ca jiital jàmm. kon ña nga xam ne jotuñu woon a dugg ndax bërëb ba xatoon na ah ñu xam ne loolooy kàddu sëriñ bi ñu doxe ko nag it di ko waxe ak nu politique bi mën a xat xat xat ñu jàpp ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xarñaar Sénégal yàlla defal nañu waaso du liy tax ñuy ànd kon waruñoo toog ba fii mu ñuy féewale kon loolu it eh, na bokk ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee askan wi kon sëñ loolooy tànk yi ñu ngi lay biral ne campagne bi nga xam ne tàmbali nañ ko tey te war a jëm bala le 29 ñu war a wër Sénégal yëpp noonu la ñu ko bëgg a defee ci waxtaan ak sénégalais yi ci programme yi nga xam ne président jot na ko fee def te am lu bari lu ñu fi gis nag fii ci Touba waaw ñu nar a wër fu nekk Sénégal ah euh, fàttali ko mbokk yi ak wax leen nag li nga xam ne mooy programme bi mu bëgg a def incha allah bu amee majorité à l'Assemblée nationale kon loolu mooy kaddu yi daanaka tey mooy suñu premier jour de campagne ah, bu nu fi jógee rek dañuy dal di euh, yegg Jolof Eh, Linguère eh, ba ca Ranérou eh, waaye tey nag daanaka tey fii lañu ñu fii ci Touba ah te ñu am fi nag vraiment contenté bu rëy rëy ndax sëñ bi it yeb nañu waaye ñaanal nañu it waaw ñu ngi vraiment ndokkeel sunu responsable yi fi toog yëpp ñoom ñëpp wax dëgg yàlla danoo def benn say ñoom ñëpp danoo ànd ak candidat yi ah, soxna yi yu jigéen yi ma bëgg nga ñaanal leen bu baax a baax a baax ndax man mii la sox la président def tedd liste may ab soxna ah, nañ nag taxawaayu soxna yi eh, ci yoonu murit la damay wax sama voilà bu may waxtaan ak tubaab bi ne leen yéen amu leen dajaloo boo xam ne wii toll na ni bu poroxaan ab poroxaan ab soxnaa ko war kon eh, sëñ bi it loolu wax nañu ko ah jigéen ñi day waaw war ngeen góor baax na jigéen baax na waaw kon soxna yi ngeen déggee ko noonu yéen it ngeen fas sër yi bu baax a baax waxtaan ak soxna yi sëñ bi eh, looloo doon kàddu yi ah ñu ngi jéggalu nag ndax comme fii dañuy mujjee wax ak sunu responsable yi Euh, waaye nag lañu ñu indi woon mooy vraiment tànku ziyaare euh, ak tànku sàkku si ñaan ak euh, vraiment di la di di di rafetlu it sa liggéey bu baax a baax a baax saa yooy yëkkatee kàddu ngëneel lañ ci am ak ay njàngat yàlla na la fi yàlla bàyyi lu yàgg yàgg yàgg te ngaa dëgg jërëjëf mbooloo bi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp. nee na mi ngi tàmbalee nuyoo bi ci ñi nga xam ne ñoo jiite délégation bi. di ko teg ci loxol soxna Aminata Touré. moom mi nga xam ne moo jiite coalition bi nekk tête de liste bu Benno Bokk Yaakaar. ak mboolem ñi mu àndal ñëpp. nee na bàyyiwul kenn. nee na du ñàkk mu tudd ci ay benn benn. nee na képp koo xam ne tudd ko itam. nee na nga jéggal ko ko. doomu aadama dañ ko bind ci fàtte. nee na doomu aadama doomu aadama dañ koo bind ci fàtte. wala xad ahidna ila aadama min qablu wala xad ahidna ila ila ila ahli aadama fanasiya. loolu moo ñu topp ba léegi. nee na loolu nag moo ko moo ñu topp ba léegi. kon ñu ngi na kon mu ngi dalal soxna Aminata Touré jàmm bu baax a baax. di ko sant. nee di ko sant. kaddu nee na ci kaddu yu rafet yi nga xam ne moom nga fi wax. sëriñ bi nee na dégg na ko bu baax a baax. Eh, kaddu nee na kaddu yépp rafet na. ndax ci jàmm. nee na ndax luy jëm lu jëm ci jàmm. ak benn le. képp ku jiite aw nit rek. képp noonu nga ko war a jiitee. noonu nga ko war a jiitee. noonu nga ko war a sàmmee. nee na mi ngi nuyu ñi mu àndal ñépp te bu ci tuddee ministre Samba Sy. nee na bu ci tuddee monsieur le Samba Sy. ak maître El Hadj Diouf. ak maître El Hadj na nee mi nga xam ne ñëpp xam nañ ab taxawaayam ci dëkk bi. ak ci Serigne Touba. ba ci Talla Sylla nee na ba ci Talla Sylla mii. yàlla def na matuma kenn kilifa man la dox diggante ak sëriñ nee na moom de yàlla def na matul kenn kilifa waaye moom la dox digganteem ak sëriñ bi moom la def mu dox digganteem ak sëriñ bi. kon ak ci des nee na ak mboolem ñi ci des ñëpp. nee na bàyyiwul kenn. nee na mi ngi nuyu mbokkum boppam mii. di soxna maam xari Mbacke. moom Cheikh Mouhamadul Mourtada. nee na di sa wóllëre. di sa xarit. nee na daaw. àndoon ngeen ca kër Serigne Sidi Cheikh Abdoul Ahad. àndoon ngeen ca kër Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad. nee na nga ñëw fa di fasante ak moom kóllëre. nee na moom mu indi la fa. nee na mu seere fa ay kaddu yu rafet. sëriñ si di tontu lay kaddu. sëriñ si di tontu la ay kaddu. ba noppi am lu mu lu ko wax moom Cheikh Amadou Bassir. ci sa kanam. kon day mel ne sa jotaay bii tey. nee na day mel ne kon sa jotaay bii tey. moom bokk na ci ñi ko yéene moom bokk na ci ñi ko yéene woon. kon nag mi ngi lay ñaanal bu baax. kon nag mi ngi lay ñaanal bu baax. yan bu rëy boobu ñu nee na yan bu diis bii nga xam ne moom la ñu la teg. yàlla dimbali la ci. yàlla dimbali la ci. kattanal la ci. ba ñi la ko dénk seen yaakaar bañ a tas ci yow. di nuyu nag suñu njabootu bopp gii. nee na mi ngi nuyu njabootu boppam gii. nga xam ne boo leen gisoon. nee nga xam ne boo leen gisoon. te siyaare ji woo sëriñ bi. te siyaare ji woo bi. agsi woo ci nit ñi. agsi woo moom mii. mën nañ laa dalal. mën nañ laa dalal. tontu la tontu la. ngeen tàggoo ngeen tàggoo. te du tee lépp rafet. te lépp rafet. ndax ci doon rek. nee na ndax moom ñoom liñ ci doon dee. loolu lañ ci doon ñoom loolu lañ ci doon. kon nag bu ñu wëlbatikoo. xam ne xam ne. yaa baniya laa tadxulu min baabin waaxidin. nee na yaa baniya laa tadxulu laa tadxulu. min baabin waaxidin. min baabin wa waaxidin. wadxulu. wadxulu. min abwaabin mutafarriqa. min abwaabin mutafarriqa. loolu rek moo indi. nee na loolu moo indi jotaay bi. ñun ñii ñu ñun ñii nga xam ne ñoo ne ci biir daara ji. ñoom ñii yor nañu daara. nee na ñoom ñii yor nañuy daara. waaye ñu boole ca leneen. waaye ñu boole ca leneen nag. Eh, dimbali nit ñi ci saytu leen. ngir dimbali nit ñi ak saytu leen. ndax politique moom. nee ndax politique moom. jamono ko yàq. na jamono moo ko yàq. waaye li ko tax a jóg. waaye li ko tax a jóg. du génnug lislaam. du génnug lislaam. kon nag eh, nee na kon mi ngi nuyu Cheikh Mamadou Fadal. mi nga xam ne moom ngeen def tête de liste. mi nga xam ci département Mbacké. nee na di ko ñaanal moom itam. ndax moom taxawaayam ñëpp xam nañu ko. nee moom de da daan faral di wax ne ko. sa yitte jëpp. sa yitte jëpp. tasaarewaat ko ci biir nit ñi. yaakaar naa bu fekkoon kuy dajale. nee na bu fekkoon ne moom Cheikh Abdoul Fadal kuy dajale la. kenn du ko ëpp xaalis ci dëkk bi. kenn kenn kenn du ko ëpp xaalis ci dëkk bi. lu mu am rek joxe na nee na lu mu na ko. loolu nag. dara jiituwu ko ci njiit. dara jiituwu ko ci njiit. la Cheikh Abdoul Ahad waxoon ne. ci waxoon na président Abdou Diouf ne ko. nee na la Sëñ Abdoul Ahad waxoon président Abdou Diouf ne ko. ni ñuy ni yoree kër. ni ñuy yoree kër. ni la ñuy ni ni la ñuy yoree am réew. lu ne nga nangu ko wuti. li na lu ne nga nangu ko wuti. te fexe koo am. te fexe koo am. te nangu koo séddale. te nangu koo séddale. te gën caa néewle te gën caa néewle. waay juróom itam nee na waay itam digganteem ak moom Cheikh Amadou Lamine Bara. di Cheikh Amadou Lamine Bara. di Cheikh Amadou xam nañu nee na ñëpp xam nañu ko. liggéey bi may taxaw ci yoon nee na ndax liggéey bii nga xam ne moom lay saytu ci biir yoon wi. moo ko jëloon teg ko ci sama. nee na Cheikh moo ko jëloon teg ko ci loxoom. kon lu njabootam nekk nee na kon lépp loo xam ne njabootam ma nga ca. sama njaboot la. nee na ak njabootam la di nuyu itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. nuyu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. yàlla dafa def suñu borom mu mën a boole. nee ndax yàlla dafa def suñu borom boole leen. li wolof yi di wax naan ñuy wax ci sëpp ak dugub. nee na li wolof yi di wax ci sëpp ak dugub. nee na cin li boolewu leen. nee na cin li boolewu leen. ci àll ba lañ daje ci àll ba lañ waaye waxuma sama digg moom. waaye waxul digganteem moom. waaye ñoom ñaar ñii. waaye ñoom ñaar ñii. seen i diggante noonu la demee. seen ñoo ànd seen ndaw gépp nee na seen ndaw gépp ñoom ñaar ko ànd. ànd seen mag. seen wu mag. maa ngi fàttaliku. nee na mi ngi fàttaliku. 2012 2012. ñu nekk Mourtani ba moom. na ñu nekk Mourtani moom ak Cheikh Abdoul Bachir. ak Cheikh Abdoul Ahad. ak Cheikh Abdoul Ahad mii. booba nee na booba la ñu tànn Cheikh Abdoul Fadal mii. waaye kaddu yam ci yëkkati. waaye nee na kaddu yem ci yëkkati. ci ci mbégte. ak bégte ak bu toogoon mënu ci àgg. bu toogoon mënu ci àgg. ci yéene ko ci ndam ci yéene ko ci ndam. ak ànd ci ak moom kon seen diggante bii du tey. kon la leen boole démb la. te da am. te bokk gu ne ak xarit da cee am. waaye yàlla da leen déggale ñoom ñaar. waaye ñoom ñaar de yàlla da leen a déggale. loolu nag di nag lu am solo la. di loo xam ne day noppal nit ñi. di loo xam ne itam day noppal nit ñi. ndax moom mii itam. ndax moom mii itam. di Cheikh Abdoul Ahad. di Cheikh Abdoul waaye juróom moom mii daa mos a wax ju am solo. daa na ko moom wax na ko Cheikh Abdoul Ahad wax na ko Cheikh Abdoul Bachir wax na ko ñeneen. mooy bi nekkee Serigne Touba. nee na bi mu nekkee Serigne Touba. am liggéey bu mu doon liggéeyloo Cheikh bi ci jumaa bu mu doon liggéeyloo Cheikh Abdoul Ahad mii ci jumaa ji. fekk Serigne Saliou moo ko bi ko Serigne Bara di wéyal. daa wax ne. daa wax bi de. liggéey bi de. dama koo teg ci loxol Cheikh Abdou. dama koo teg ci loxol Cheikh Abdou. doxale la sama diggante nee na doxale ko digganteem ak moom. man nee na doxale Cheikh Abdoul Bachir mii digganteem ak Cheikh nga di ko taxaw. nee na nga di ko taxaw. ndax li ma ci jublu. nee na ndax lim ci jublu. bu ëllëgee dara dara du lënt. bu dara bañ a lënt. kon loolu. nee na kon loolu. yàgg na yàgg na. yàlla def na yàlla def na itam nag. ba ma Cheikh Baara ba ko Cheikh Abdoul Ahad Baara dénkee liggéey bi. liggéeyu màggal gii. liggéeyu màggal ak dëkk bi ak dëkk bi. boobu ba nëgëri. nee na boobu ba nee na ñoom ñaar ñoo koy ànd musu musuma cee def lu musu cee def loo xam ne luy réeroo ak moom la. ci biir activité. ci biir activité. lu ma ci na lépp loo xam ne mus na ko cee defit. bala ma faa génn diisoo nañ. bala ma faa génn diisoo nañ ci ñoom ñaar. ci xalaat ci xalaat. ba déggoo ba déggoo ca. kon kon seen diggante. daanaka ñëpp xam nañu nee na daanaka ñëpp xam nañu ko. nit moom bu ngeen demee ba seen jëmm kenn mënu ko xam. nee na ndax nit moom bu ngeen demee seen jëmm kenn mënu ko xàmmee. kon loolu ab diggante mënu ko weesu. kon nee moom itam mi ngi koy sant bu baax. nee di sant président ci tànn gi mu leen tànn. ñoom dugal leen ci liste bi. ak mboolem ñi mu ko seqal ñëpp. te bu ñu ci tuddee Makhtar Diop. nee na bu ñu ci tuddee Makhtar Diop. tudd ci moom mi itam di jàmbaar di gone. tudd di jàmbaar di gone. ne ci dëkk bi di ko liggéeyal. nee ne na mi ngi koy ñaanal te di ko sant bu baax. di nuyu Abdou Lahad Seck. nee na mi ngi nuyu itam Abdou Lahad Seck saa dagga. nee na ñoom ñaar seen diggante. nee na tudd na ko koo xam ne ma nga ci daara ji di jàng alxuraan. kon loolu ab diggante la. nee ak Mouhamed Cissé mii. ak mi nga xam ne moom itam ci dëkk bi la nekk. di sonn ci nit ñi bu baax a baax. ak soxna ay dagay nee ah, ak doom yu boppam ji. di sëñ Issa. moom Serigne Moustapha Bassirou. nee na moom itam tudd na ko doom. nee na yaakaar na ne seen diggante ñëpp xam nañu ko. ak jàppam ci moom. ak jàppam ci moom. ak taxawaayam ak ñi ci des ñëpp. ak mboolem ñi ci des ñëpp. nee na bu xasee tudd ñaar ñii rek. nee na mel na ne yóbbaale na ñëpp. nee na tudd gi amul solo. ndax ku ci nekk li ngay jëf. la ca jiitu. nga di ko jëf ngir Serigne Touba. te mooy. ndax mooy tax doo perte. ndax mooy tax doo perte la ngay jëf. la ca des nee na la ca des ki ngeen ko seqal. muy président muy président de la république. mooy seere. nee na moom mii mooy seere kon loolu doy na sëkk. kon kaddu yi du gudd. nee na kon kaddu yi du gudd. tuuti rek lay nee na tuuti rek lay doon. mooy sant. nee na mooy sant. ak ak ngërëm. ñaax ak ñaan. nee na cant gi. lu gàtt lay doon. nee na lu gàtt lay doon. ndax. na ndax. daanaka jëratul ñuy sant. daanaka jëratul ñuy sant. dem ngeen ca Cheikh Mouhamadul nee na ndax dem ngeen ca Cheikh Mouhamadul Mountakha. moom mi fi Serigne moom mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba. yilif yoonu murid yëpp. nee na yilif yoonu murid bi yëpp. ñëpp di ko déglu. ñëpp di ko déglu. mu santal leen boppam. mu santal leen boppam. sant président. nee sant président. ngeen dégg nee ngeen dégg ko. kon loolu. bu ci waxaat ba suba yi. nee bu ci doon waxaat fii ba suba itam. mënu ma ko weesu mënu weesu. la mu waxoon sëñ Baara moom Cheikh nee na la mu waxoon sëñ Baara moom Cheikh Ahmadou Mountakha. ne ko sa genn kaddu gi. ne ko sa genn kaddu gii. moo gën suñu junniy kaddu. nee na moo gën suñu junniy kaddu. waaye ñaari baati sëriñ bi. nee na ñaar ñaari baati. sëriñ bi mu wax. nee na ñaari baati sëriñ bi mu wax. ëpp na suñu kaddu moom. ëpp na ay kaddu moom. kon seere rek lay def kon seere rek lay def. ndax yàlla dafa def. nee na yàlla dafa def. mu doxale ma diggam ak président. mu doxale ko digganteem ak président. yëpp yitte. yëpp yitte. di jëm ci moom. di jëm ci moom. moom la koy wax mu jottali ko. président itam. bu amee yitte ci sëriñ bi bu amee yitte ci sëriñ bi. man la koy ma jottali moom mii la koy wax moom Cheikh Abdoul Bachir mu jottali ko sëriñ bi. bu ngeen teewee. nee kon nag bu ngeen teewee. yéen ñii di njabootam. yéen ñii ak njabootam. ak taalibey sëriñ Touba ak taalibey sëriñ Touba yi koy dégg. yi koy dégg yi koy dégg. ñëpp war nañoo xam diggante ba. ñëpp war nañoo xam diggante ba na muy demee. ndax li tax. na ndax li tax. nee na moom. yàlla da leen na boole. yàlla da leen a boole. li ko sëriñ bi waxoon ci làmmiñam ñëpp dégg li ko sëriñ bi waxoon ci làmmiñam ñëpp dégg nañu. ndax lu ma ci wax rek. nee na ndax moom lu mu ci wax rek. sëriñ bi wax na ko ngeen dégg. sëriñ wax na ko ngeen dégg ko. boo nekkagul sëriñ Touba. nee na booba nekkagul sëriñ Touba. bi mu doonee sëriñ Touba. bi mu doonee sëriñ Touba. yaakaar ja dolliku. yaakaar ja itam dolliku na. kon nag sëriñ bi wax ne. bi mu fi mujjee ci Masalik. bi mu fi mujjee ci Masalik. dana ma nee ko. dana ko nee ko. sant naa ko. sant naa ko. gërëm naa ko gërëm naa ko. maa ngi koy ñaanal ci maa ngi koy ñaanal ci barkeb Serigne Touba. lépp lu dugg rek. lépp lu mu dugg rek. yàlla na ko ci yàlla defal ndam. daan na ma itam nee na daal koy waxoon itam ca 2012. ba mu fiy ñëw ba mu fiy ñëw. dama ko waxoon ne nee na da koo waxoon ne ko. demal ca barabu Serigne demal ca barabu Serigne bi. boo demee loo bëgg rek nga ko nee na boo demee loo bëgg rek nga fas ko fa. dana nee na dana la ci fekk si. maa ngi jégalu nee na mi ngi jégalu kat. Cheikh Abdou Lahad Jaxate mii. nee na li tax lim bi doy war. nee na li ñuy wax taqdimuhu taaxir. nee na jarbaatam la. di xaritam. di léppam. ñëpp xam nañ sama diggante nee na ñëpp xam nañ seen diggante ñoom ñaar. daanaka waxtu wu nekk. nee na waxtu wu nekk. guddi ak bëccëg ñoom ñaar ñooy nekk. kon mi nee na kon mi ngi koy sant bu baax. daanaka ñëpp xam nañ sama diggante. na ñëpp xam nañ seen diggante ñoom ñaar. lasiina ak amono rek. nee na lasiina la ak amono. kon. nee na kon. Cheikh Mamadou Mountakha wax nee na kon Cheikh Mamadou Mountakha wax ni. ñi fi ñëw di sàkku si de. ñi fi ñëw di sàkku si de. li ñuy bëgg li ñuy bëgg lenn la te mënuma ku fi mënul képp ku fi ñëw. ma ne la ñaanal naa la. ma ne la ñaanal naa la. ndax loolu doon dëgg. na ndax loolu doon dëgg. te moom diggam ak borom da moom digganteem ak boromam moom Cheikh Ahmadou Mountakha da koy sàmm. mu ne kon nee na kon mu ne ko moom du ci ñaanal kenn. mooy 2012. nee na loola mooy 2012. daanaka waaye moom mii nag. waaye daanaka waaye moom mii nag. dafa am lu mu seq ak man. jàpp na ko ngir a fayee. a fayee. a fayee. lu ma ba mu faloo itam. nee na wax na ko muy dégg. nee na wax na ko ko ko waxee. ko ma am ci seere. nee na moom ndax da koo wax ci alxamis. da koo wax ci alxamis ci ngoon. président fanaan fi. président ci ajjuma ji. bi ñu sëlmalee juma. bi ñu sëlmalee juma. sëñ Mamoun Boussa tàgg ko ne. sëñ Mamoun tàgg ko ne ko. Ilimane Ilimane. ne ko président kat dana ma daa bëgg ma gunge ko ci ma ko barab bi daa bëgg siyaare. ne ko président kat nee na dafa bëgg ma tijjul ko barab bi dafa bëgg a siyaare. ndax am naa ci ndigal. ndax am naa ci ndigal. sëñ bi ne waaw. sëñ bi ne ko waaw. ne ko boo demee nee ko. ndax boo demee nee ko. ka ma ko doon dénk mi ngi noonu loolu yaakaar na nee na kon loolu yaakaar na ne. ku xam ku fi nekkal Serigne Touba ku xam ku fi nekkal Serigne Touba. nga dégg ko ci làmmiñam nga dégg ko ci làmmiñam. te xam fi mu toll ci digganteem ak boromam. loolu doo ci am sikki sakk. ba mu faloo ba ba dellu si. nee na ba mu faloo ba dellu si. Serigne bi wax ñëpp bi wax ñëpp di dégg. mu ne ñaanu ci woon. mu ne ñaanu ci woon. nee na da koo dénkoon Serigne Touba. nee na léegi nag tàmbali naa ñaan. nee na loolu Cheikh Mountakha moo ko wax ñëpp di dégg. nee kon ni ngeen ko wax ne ko na xelam dal bu baax. ndax bu ñun ñii de. nee na ndax moom bu doon bu doon ñoom ñii de. bu doon ñun ñii de. mën nañ ko ko wax ngir bakkan ko ko wax ngir bakkan. waaye sëñ bi moom weesu waaye Cheikh Ahmadou Mountakha de moom yàlla weesal na ko foofu. ndax li ñuy sakku ci àddina. ndax li ñuy sakku ci àddina. ba mu jugee rek la ko jël sànni. ba mu jugee rek la ko sànni ko. mosu ci am yitte. mosu ci am yitte. mosu ci am solo. ba mu dund na ba am juróom-ñetti fukki at. nee na dund na ba am juróom-ñetti fukki at. kenn a dégg mu jaxasoo nitug àdduna. kon bu demee ba yoon wi nekk ci loxoom. nee na kon bu demee ba yoon wi tege ci ay loxoom. nga xam ne weer wi képp. lim dugal ci compte na ñaari milliards. lim dugal ci compte Sëñ Tuubaa boo compte xam ne. compte boppam matul téeméeri. compte boppam matul téeméeri million. kooku weesu na àddina. nee na kooku kon weesu na àddina. kon la Serigne Touba waxoon. nee na kon la Serigne Touba waxoon. rafaatale na ko ñi ko fi nekkal. rafaatale na ko ñi ko fi nekkal. ci mujjug Serigne ci njaareem. ci mujjug ci njaareem. am ci mag ñi ñu ko waxoon dafa am ci mag ñi ñu ko waxoon ne bëggoon. dañoo bëggoon. nga doxalee sa diggante Touba bi diw na nga doxalee sa diggante ak Touba diw wala diw. ne leen sama diggante ñoom de kenn bi ne leen sama diggante ak Touba bi de kenn doyuma ci ñoom. ndax ku dul man. nee na ndax ku dul man mën nañ laa xupp. mën nañ laa xupp. wala ñu xëpp la. man nag mëneesu koo xëpp. nee na moom nag mëneesu koo xëpp. mëneesu koo xëpp. loolu nag rafetal na. nee na loolu nag rafetal na ko ak Cheikh Modou Mountakha. nee na képp ku ko fi nekkal rek. ndax koo xam ne. ndax koo xam ne. nit ñee lay daq di jox seen alal te mënuñu laa gis. nit ñi lay dàq di seen alal te mënuñu laa gis. bu dee ab daraja yaa ko ëpp. bu dee ab daraja yaa ñëpp. nee na la sëñ Abdou Lahad waxoon Abdou Diouf rek. nee na la sëñ Abdou Lahad waxoon Abdou rek. sa doole ji. ne ko sa doole ji. dafa sondax ci doole dafa dafa sondax ak doole Serigne Touba. dafa sondax ci doole Serigne Touba ji. ndax boo soxla woon junni nit. ndax boo soxla woon junni nit. ma soxla junni nit. ma soxla junni nit. nga koo am ni ma ko amee. mën nga koo am ni ma ko amee. waaye amin wa du bokk. waaye amin ndax yow man yow boo soxlaa junni nit. ndax yow boo soxlaa junni da nga leen wutal paas. da nga leen wutal paas. buñ dikkee da nga leen joxub añ. buñ dikkee da nga leen te da nga leen wax li nga leen doy. man nag bu ma nee ku yaakaar nee na man nag su ma nee ku yaakaar sëñ Tuubaa na nga ñëw. ku ku ñëw yaay wut lu la indi. te boo dikkee itam ma jox da nga ma nuyoo dara. te boo dikkee itam da ma jox la nga yor da nga ma nuyoo dara. te la nga fi lekk yaa koy indaale. te la kon nee na kon. sëñ bi lépp lu mu wax rek. sëñ bi lépp lu mu wax rek. Basiiratu tax moo. Basiiratu moo tax moo ko. moom mii itam nag. nee na moom mii itam nag. bu ngeen gisee mu jàpp ko. bu ngeen gisee mu jàpp ko. néew na weer dugg ba jeex. nee na néew na weer dugg ba jeex. te sëñ bi yónni wu ko ci moom. te sëñ bi yónni képp lay doon ak njaboot gi. mës a dégg yittee sëñ nee na moom de mës a dégg yittee sëriñ bi. ndax nee na ndax sëriñ bi moom amul bëgg-bëgg. wax président président leen gën a xam nee na président moo leen gën a xam lii muy wax. mos a dégg jenn soxla nee na mos a dégg jenn soxla sëriñ kon nag bu fi sëriñ bi nekkalee sëriñ Touba. nee na kon nag bu fi sëriñ bi nekkalee sëriñ Touba. président séddu ko ci boppam li ko sédd. président séddu ko ci boppam li mu ko sédd. def ko kilifa. def ko kilifa. def ko wayjur. def ko wayjur. def ko sëriñ. def ko ab sëriñ. kon cant gi. nee na kon cant gi. dafa war ci moom. leeral taalib bi nee na leeral taalib bi yëpp itam. fi mu nekk ci moom nekk ci moom. dafa jaaru ci moom dafa ja dafa jaaru ci dëkk bii nee na ndax dëkk bii kat. mi ngi ko fiy jàppale ci liggéey bi. ngi ko fiy jàppale ci liggéey bi. te li ci ëpp ci loxo la te nee na moom mii li ci ëpp ci loxoom la jaar. ndax 30 bii nee na 30 bii ñuy def ci biir dëkk bi. ñëpp gis nañ li mu fi jariñ. ñëpp gis nañ li mu fi jariñ. te liñ ci def bari na. yeneen tali yi nga xam ne itam ñu ngi koy bëgg a tàmbali. nee yeneen tali yi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a tàmbali. bokk na ci bu Daaru Karim. nee na bokk na ci bu Daaru Karim. ak bu Tindoodi. ak bu ak yoon wa jëm ci Baye Fall yi. ak yoon wa jëm ci Baye Fall yi. ak yeneen yoon yi nee na ak yeneen yoon yi nga xam ne ñoo war a dem ci autoroute bi. ak li nga xam ne waa marché Ocass bu ñu leen gisee. ak li nga xam ne waa marché Ocass bu ñu leen gisee. ma ngi koy defal loolu lépp sëriñ bi la leen koy defal loolu lépp sëriñ bi la ko defal. kon. mu wëlbatikuwaat assainissement bi nga xam ne. nee na mu wëlbatikuwaat assainissement bii nga xam ne. lu matul juróom benn weer. lu matul juróom benn weer. bi nab bi sonalee dëkk yi ba ñëpp bi sonalee dëkk yi ba ñëpp jaaxle ci. sëriñ bi yónni ko ci moom. ne ko bii mooy bi jiitu ci yitte yi. ne ko bii mooy bi jiitu ci yitte yi. màggal ndax màggalu Touba gi. mi ngi bëgg a dugg ci mi ngi bëgg a dugg si ci biir nawet bi. kon ñaari jafe-jafe la. fa sensé mu def ci yitte. fa sensé mu def ci yitte. ba tàmbali lañ liggéey bi. ba tàmbali lañ liggéey bi. ba bi. ba nab bi. fa ndox ma taawoon ci armée la wàcc na. fa ndox ma taawoon ci armée la wàcc na. ak faneen fu bëree bëri ci dëkk bi. nee loolu xaajagul. kon nag loolu lépp nag. bu ko day def ngir njëmmi Serigne Touba. jaadu na. mu leeral taalibe si. mu leeral taalibe Serigne Touba yi. ak ñiy dégg. ak ñiy dégg. ñu xam ne li ko war ci seen diggante. ñu xam ne li ko war ci seen diggante. matal matal na ko. dara mënu koo fayee dara lu weesu. kon loolu mënu koo fayee dara lu weesu. sant ko sant ko. gërëm ko gërëm ko. ñaanal ko ñaanal ko. nam ko ko waxee woon nam ko ko waxee woon. lépp loo xam ne ma ngi cay dugg. lépp ma ngi cay dugg. yàlla na ko ci yàlla defal ndam. nee na yàlla na ko ci Serigne Touba gàttandu. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.